ay guro fii la daan toog ba kër gi neex capa jees fii la daan toog di daan dooleem ah, ay guro jàppa jëf fii la daan toog Umar Oka ñaar numéro yëpp Umar Oka ñaar ah, xaalis bi nga nag jaaxle naa jaaxle naa trop nag xoolal Umar Oka ba nga xamante ne woyu bi génn na kaso bi tey sama nijaay lekk tuuti naa nag métti na nag mu faram dem si amul xarit. asalaamaaleykum. yaa ngi jàmm ana guro. guro nekk fi. ah guro de bu dul nekkoon waxtaan sax. guro dafa tukki. tukki waaw. ah ban dëkk. xaw ma ban dëkk la dem de. ah guro tamit moom tamit ni tamit eh, guro tamit guro guro guro neexul ba neexul mais guro caaxaankat la guro caaxaankat dëgg la waaw yoo am na yoo xam ne boo ci nekkee war a too taxaw guro fi mu nekk nii daa nekk ci guddi gu bët setamul fu ci dugal ko dugal ci guddi muy ne ko kon nga guro faale nga yow koy nga rek guro tàgguwu li la waroon mooy maandu comme bi muy doon tàgguwu la fa nga tegguloo gu la tegu la man ñii nga ñëw nag pour enquête ma soo sa boppam sa tenue militaire soo ba yàlla doo xam ci man dara lu la leer ndax néew ma naa la wax lenn tegu la fenn doo dara ba mu dina teg kenn. ah déet nag déet nag yaay cama neel doo doo dara ci man waaw mais buróom moom sama waaye loolu moom àdduna yépp xam na ko. dama xaar ko ñu. lii nag man moom yii sax moom nga indi woon. wax dëgg yàlla comme que nit moom boo nekkee moom moom am ay jafe-jafe danga koy taxaw kii sëriñ bu mën a ñaana moo ko jox sëriñ boo xam ne lii caba ko mu mës a ñaanal sa mbir ne bomb lay def bomb moo lii ne ma lii nag di galaat boo xam ne nii guróom ci ay jafe-jafe xam naa ni yëgoon na mu ci te biir jafe-jafe yooyu dara mënu ko cee génne lu mu lii bitéel bu ndaw bi couleuru asamaan la mm-hmm. kii ñaanu ñaanu bulux la naan mbulu. eggale li ngay wax. waaw ba tax na daal waxoon na ma comme que fekk ma fi guro guro di tey waroon na saw guux ci ñetti guux lif ko ci kër gi ba pare waaye fii karo la teggi benn karo bee gas ba mu xóot suuf ko ci. yàlla defal ko jàmm. ci kër Fatou Kiné gi ñu karo ubal fanweeri at mu dëkk ci këram gi ñu karo ko mu yedd nga ñëw ak sa butéel bi xorbet bii ngay mel ni ku doon cuub mu furi nga ne dangay teggi karo Fatou Kiné yi pour ñu ci benn. xoolal dafa am sax loo xam ne moo am ba des yow doo wis ba tala suul lu guro dugg nag yaa ko ca dugal sa butéel yi mooy butéeli guro la la lu guro dugg yaa ko ca dugal guro bu nekkul ci jàmm doone ci ma yëgal la ko nag fii nga toog. man maa jàpp billaay bu ñu bés bu ci lu tax mu ñàkk jàmm keroog doo fi yenn. ko ah! <laughs> wuy ma man caba àllaaji baara bàcc maa ko doo wis nag jógal ak sa butéel ci biti. caba boo xamul butéel bi xam ki jox butéel bi. xam naa dangay dama toog nii ndeysaan ki ne moom nekk fi tey daa dem nga yaakaar man doo ci kër gi léegi mu leer la doo suy doo suul. damay suy de. damay suy damay suy karo bii dama koy daaj suul ko ci. damay suy aada. waaw aada naa. ko jox xalifa sama. waaw ne la ba mu ñëw. Ah, da a guro sa baay guro laay du ba utal ay xar fa xuufa waaw. boo leen ko toog. déglu ne ñaari baat laa lay flyam kat benn bi mooy nga jóg ñaar mooy mooy nga. dégagé ba mu dóor la ba nga dee moo looloo moo la laas. gën laa réew gën laa rek gën laa man. mënul lool ah kay. lii daal xoolal dama ko sii rek. ah bu fi ko dégg. sama tool. laa ilaaha illallaah parce que dama ko sii rek dama ko sii rek. déglu ma nag ah. dama dégagé wu. yow kay yow kay xanaa am jum yow xanaa amoo kër. waaw yow ah non xoolee ma ne sa baay. man sa borom bi bàyyi yow xanaa amoo jam ah, eh, la. du sotti de. ah damay damay damay sotti.

dina suul dina ma jox li ci ma naan. dë loolu du ko fi def. Ah, waaye moo la ban affaire nag maman li ma mënuma si dëkk de. daa métti trop. sama papa moom du def ay affaire mu ñëw ah da ngay su ma nee sama papa fu mu jëlee xaalis nga saaga ma mu ko ne fu mu jëlee alalam na nga moom waaye lépp waxoon naa la te yaa ngi ci bi man de benn affaire dinaa dinaa dinaa génn jënd sama café déglu sama musique toog jox sama ñaar parce que waxoon naa la bu amee problème ma si débat léegi nag yaa koy gérer man de sama papa si lu mu réer ak lu mu daw xaw ma xaw ma xaw mu xaw ma Omzo Lo bu mu génnee ba tey amul jàmm ci kër gi dafa daw. ma ne. waaw dama def naan dama def naan. danga may def ñaanal jàmm sa papa ne ci jàmm sa papa nekkee ci musiba nga ne gis nga xaalisu boosuloo bii ba mu génnee ba tey wuy ma fii bu ànk bi ubbee ku ci lekkoon nañu. man duñ ma si tudd. Eh, eh, ñaari millions ñu ci lekk ñu tudd.

wutuma kenn parce que man waxoon naa ko jur moo koy laaj fii xaalis bi fa la ko jëlee la mu wax. merci beaucoup xaalis amul juddu. nag sama yoon nekku si damay continuer nag lu sama yoon nekkul nag ma continuer si nag sama yoon du ci nekk yow mi nga xam ne sa yoon mu woon ci nga nekk nga ne da nga nekkoon ci ay problème da ngaa commencé xàppi moo la fay lii léegi da ngay continuer xàppi ak moom. ñaari millions yi ñaari millions yi loolu loolu loolu daa ma si waxtaan. sa liggéeyu liggéeyu Eh, eh, eh, am a ngeen liggéeyu ma fii dem raxas oto ñëw indi. ba nga ko indee da nga koo joxe ci picc pàcc. waaw ah, piscine pàcc loolu foog ma dem nag tudd sax piscine pàcc la. Adama Adama magum yàlla am jëmm nga dootoo gone gone yi a si tiyaaba parce que siiwal nga ma. Adama xanaa dama xanaa na koo defaree di di wax amatoo si baraaj. tiit yow mi di yóbbu sa la fi ba waaw da ngaa tiit de yaa ngi palpale de sa ratatat ji di mel ni beret oh, te yow yóbbu sa baat def bàyyi ah. te yow nag booyee boo gàttal sa tànk amoo njëriñ soccu mii di mel ni prématuré nga génne bu la mbos bu nekkoon ci yow dina génn mbos loo na sëkk nag ñu ngi koy envoyé photo seet ko ci yutulul bi yutulul moomu ngeen di kii youtube mu ngoog boo ko yutululee gis ko muy ma toog na ni mbër nag génne na kaso day na lu ko neex boo yóbboo gàttal sa tànk dégg nga yow li yóbbu billaahi wallaahi man maa ngi leen di giñal ne man Keba laa di baara yàlla nañ leen sa baara ah yow tamit nañ leen tëj nag. yow man maa sa taaw buñ ma tëjee nga ñàkk. mu ni man maa sa taaw. bu fekkee wute taxa bu fekkee taxa ñàkk boo ko te doo am fuy ma boo dee sama taaw jëriñoo ma dara. ngir ñu ma dara léegi li ma def fii nag bàyyi tàcc na su ma fi ñëw du dara la dóor du génne naa kër. waaw man de benn affaire moom si dara xam ne man gone du ma dóor man bozloo daal bozloo daal bozloo bozloo bozloo daal tas na kër gi.

mun nga war a waat waaye doo moo ko si dugal man defuma dara man 2 millions rek laa lekk te 2 millions ma da de. waaw tiit naa tiit tiituma tiituma tiituma. <laughs> yaa tiit nag bay palpali sa baay daa daw nga ah waaw waaw bete sa <laughs> de laa war barke Seexul Xadim da nga war a tiit dañ lay tëj ñaari millions dugal dama yor soo su ma su sama yaay dama ne dama bañ.

mooy li ma ñàkk sama ji bii dafa war dong ma ji mais beneen alal jiguma da ngeen di xool depuis xaalis bi dugg ci sama kër gi ba tey sama nijaay xaw ma ci moom dara xaw ma sax ah xaalis bi xaw ma ñaata million la xaw ma ci dara aadama ñu nii jekku na sax moom ba jël ci ñaari million lekk man lekku ma ci dara lu dul dépense aw ma ci musóor aw ma ci aw ma ci dara xoolal tey jii coono bi ma nekk waat encore xoolal tey ni ma sonne waroon naa bàyyi rek man may jaay sama géej gi ma doon jaay dem jaww bi di ñëw lu ma am lekk ndax ba ma koy def ba tey nag wax dëgg yàlla aw ma problème mais bii xaar bu kër gi ba tey jii semence bi ko tënk xoolal maa ngi nii sama kër gaa ngi nii taaluma añ taaluma dara gisuma guro gisuma joo xool aadamaa nga bëgg a reyal ko koy tëj man ñi ma naa enquête bi lekk ma ci dara lu dul dépense man damaa fekk may dépense man ca dëkk yaa ngi nii may dépense boobu boo su ma jafa jafa mi bëggul guro. kii bu bëggoon guro guro jafe-jafe yi mu nekkee nii su ma indee galaaj bu tey nii da koy da koy jàppale waaye man ko ko guro diwul man maa ci njëkk diwu man waaw li muy def ci guro rek lay def ci man xam ñu galaaj léegi réew mi kenn fonkatu mbër yi rek a fonk galaaj kenn fonkatul galaaj fii laay toog seen bonaay bi la guro ni ma bëggee mu am ñaareel ay waay guro bu amoon ñaareel ay non am naa lu ma naqari lii su ma gasoon kër gi nii suuf bi tudd jànq bee na def yow. kaay kaay kaay kaay foo jox lu xew yow lu xew nga yëgu yow xanaa yëgoon ni Thiaba Dieng euh, euh, waajuram bu góor daa wàññeeku. yii yëgu ma ko woon ah barki dem boo jaay la wàññeeku. waaw ba tax na ànd naag ay nit moom ak Mbaye gisee ñoom euh, Guro ak Joxoor ñoom ñoo ànd waaw. ndeysaan lii de yëguma ko woon tant que doo ko yëg tey ah, loolu la dëj bi day bett xam nga dëj moom day bett waaw loolu am na waaw bu ñëw du tàggoo ndeysaan man de instant de xaalis bi laa ko bëggoon jox xaalis bi la ah benn xaalis laa bëggoon jox nii hmm. moo tax ma ne xaaral ma fii pour sekk waa li nga wax moom ah triste na trop dëgg yàlla xanaa ma dem yóbbu ko rek bu bu ñëwee moom dan ma moom indil ko waaw waaw ca wa da nekk wax dëgg yàlla dem na dëj ba ngaay la dëj ba nekk dem na bu yàgg a ah, man de léegi da xam na laay def bàyyi ma yóbbu ko rek ma dem te wóolu woo ma jox ma ma téyal ko ba mu bàyyi rek ma yóbbu ko xam nga xaas moom dafa doy waar dafa nekk loo xam ne moom ñaañu ko sekk la ko mënal góor saa yi la so soxoroo leen dem na dëgg ànd ak mbayam gise borom gise ñaw